nuhayyikum tahiyatan islaamiyya wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi mbokki Assalaamy TV mbokki àddina bi yépp noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara leen tatagal ci jataay bi di nuyu fii ci fréquence u TV di émission boo xam ne bu ñuy teewlu la ci comme niñ ko waxee woon chaque dix-sept ba dix-huit heures ñuy nuyoo te ziyaara nag di jiital ci suñu nuyoo xalifa général de mourides di cheikh Mouhamadul euh, Muntaxa al Bachir noo ngi koy ziyaara di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér te yàlla gën koo barkeel lool mu yàgg fi kerakam te barke lool lool lool tey nuyu suñu wóolale suñu sëriñ suñu soppee cheikh Mouhamadul Bachir Mbakke al Bachir moom cheikh Moustapha Falilu Mbakke moom sëñ Mourou Moustapha Falilu Mbakke nekk fii ci xaaxira di tànneef di jàngalekat di yarekat di yiw ñuy taatan ci moom lépp luy rogalaat ci moom ci mbaax nu ngi koy taatan di ko taatan ci doomam ji tedd ja Cheikh Abdul Karim Mbakke di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér yàlla barkeel ko barkeel itam tànneef ya soxna waalo njaay ak rakkam yépp ñuy nuyu nag e, mboolem ñuy diglu rawatina ñuy teewlu jataay bi di tasawuru xaar te mooy yóbbalu ndaw ñi sëñ Bàmba Ahmadul Xadim borom Touba ki waral lépp tey moonu jàngal yóbbalu ndaw ñi ni ñu ci war a sàmmoo ba yàlla dimbali ñu nuy góorgóorlu suñu kem kàttan fas yéene nekk fii ci suuf su tedd sii ci ndigal lu tedd lii te mooy jàng ak jàngale te borom tubaa ci la nekkoon. Euh, di jàngale xaadim di jàngale yàlla di jàngale yonte la muhammad ba ni ko taalibe yëpp bàyyee xel ba jaayante ak borom tuba xaadim rasul loolu tax na mu soppoon ñu jàng tey jàngale mu waxoon ni yéen ndaw yi daal bu leen soxla woo loolu njàng te xam-xam ne leen yitteel di leen jàng tey wattu xam-xam bi tey wattu alxuraanu karim te di ko gëstu moo tax ba lépp dafa jàng waxi suñu borom subhaanahu wa taala tax ahmadul xadim borom tubaa wa afdalu dikri kitaabullaahi maa tadabburi wal intibaahi dal wax ni wa duum ala ziyaadi ilmin wa amal li wajhi rabbika faqat azza wa jal suma tilaawatul kitaabi yanfau taaliyahu wali jinaani yarfau al ilmu maktasaba xashyata al alim wa man xalaa minhu fa jaahilun musib mulim ahmadul xadim borom tubaa dafa wax ne li gën ci lu ñuy tudd lu man doon mooy téereb yàlla bi ànd ak seetantal téere ba ak yeewu ca daal di nangi daal xam ne ni na ngeen sax ci soog ci sàkku xam-xam ak dolleeku ko te di ko jëfe ngir jëmm yàlla subhaanahu wa taala dara bañ cee rax ni gën ci jàng mooy jàng téereb alxuraan mi nga xam ne day jariñ kiy jàng da koy yëkkati jëme ko aljanna daal di ne al al ilmu xam-xam dëgg dëgg dëggal maktasaba xasyatal alim mooy li nga xam ni boroom xam-xam bi daf koy jariñ ci ragal yàlla te ku ko bàyyi woon ko ginnaaw fa jaahilun mulim dangaa réer dangaa yeddu kon sëriñ Bamba xaadim rasul yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla fayal jëmm la joo xam ni kenn xamul mooy kan dañuy góorgóorlu ci mbiram rek waaye sëriñ Bamba Ahmadul Xadim borom Touba suñu turandoo ah kenn du moom de nañ ci bàyyi xel bu baax ba tax na noo ngi góor góorlu toog ci suuf si di sàkku ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala di sekk sàkku lu neex borom Touba xaadim rasul di jàngale alxuraanul karim noo bi fi nag ay daara mu ngi ànd ak jàkka ak mbaar mu yaatu ñu fas fa yéene jàngale ak ñaari bâtiment ñu fas fa yéene jàngale téereb yàlla bi subhaanahu wa taala fas fa yéene jàngale xam-xamu borom Tuubaa bi di xasida yu tedd yi waaye ci loolu ñoo ngi ne xale yi deen teg ci yoon ngir ñu jariñu xam naa du ñàkk ñu tàmbale ci daara ji incha allah ñoo ngi koy tàmbalee incha allahu ñu seetaan émission bi mu jàll tuuti ñu ñëw ci yéen. أهل الطريقة عزم بالحقيقة ومن لوازمها إنهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء الولايات ورب macha allah sukkoon a maa ngi leen di laaj laaj bu ndaw kon yéen ay ndaw ngeen dañu leen di orienté pour ngeen doon dara ëllëg ngeen xam ne fii la sëñ Bamba jaar ngeen xam ne fii la Seydil Hadji Malick jaar fii la nit yàlla yépp jaar fii la président de la république Abdou Diouf jaar Abdoulaye Wade jaar ko fi waaye président de la république Senghor fii la jaar waaye ngeen xam ne itam Euh, ki ci nekk président de la di Diomaye ah premier ministre nekk Sonko kii la jaar ci ndaw waaye léegi lu ne lañu ku ne lañu su ngeen bëggee doon ëllëg lan ngeen war a jëkkee def ci seen ndaw kon yàlla sa boroom moo def loolu yow li ngay jàng lu tax nga di ko jàng mooy lan lan nga bëgg a jàng alxuraan nga bëgg a jàng yéen ñaar ñëpp ah alxuraan ji ngeen di jàng su ngeen ko jàngee lan la leen di jëriñ alxuraan la lun leen jigéen ñu ko jàng rek pour maali fara wala ñu ko jàng ci pour lan pour lan ngeen bëgg bëgg a xam ëllëg seen addina ji ak seen alaxira ngeen préparé ko kon loolu mooy seen waru gar kon loolu loolu mooy li nga xam ne moo tax seen euh, waajur yi jàngaloo leen alxuraan defar leen defar seenu ndaw préparé leen seenu mag ngeen ngeen doon doon dara ëllëg ngeen am ay njëriñ loolu mooy li nga xam ne moo am solo man mii ne nga xam ne maay waxtaan ak yéen Euh, maay oustaz Xaadim Géey yàlla dafa dogal daara ji ma jiite ko di jàngal xale yi di leen orienté di leen defar pour ñu baax sëñ Murtala Mbàkke doon defar ba defar jeex defar nit defar li yàlla digle moo ci gën te mbindeef la yàlla bind moo tax sëñ Abdou tax sëñ sëñ wut al azhar ñu bàyyi ci xel daara jii itam mi ngi tudd daarul alimil xabir yaay Anta Géey yaay Anta Gueye Alfadal ñu bàyyi xel ni way jur la wu mag wu tedd wu bëggën yàlla bëgg yonte la Muhammad bëgg sëñ Bamba borom kër ba ko yoroon di Cheikh Mamadou Fadal ñu bàyyi xel ni moom lañ tuddee daara ji pour ñu gën a nekk ndaw gën cee góorgóorlu waaye ñu bàyyi xelit it li mbindoo ak li noo mel fonk suñu bopp te xam ne ndaw day doon dara ëllëg kii dafa ñëw di jàng téere sëñ tuwaay muy téere bi ñu tuddee émission bi tasawudu si xaar yóbbalum ndaw ji léegi moom tasawudu si xaar sëñ Bàmba da cee wax ne sa maytu samaytuhu tasawudu si xaari ilaa jinaani laahi sil anhaari maa ngi ko tuddee yóbbalu ndaw ñi ba àjjana yàlla ja ba àjjana yàlla mi nga xam ne mooy borom dex yi mooy boroom yool yi kon ñu bàyyi xel ci loolu waaye sëñ bi yow noo tudd sëñ naa Guèye mag bi nekk sunu doomu baay waaye nekk as gor xale boppam waaye naa yow loolu nga jëkk a jàng ci alxuraan jamono ji alxuraan nga jëkk a jàng jàng alxuraan bi nga jàngee alxuraan itam jeexal nga ko wala jeexaloo ko da ngaa jàng alxuraan ba mu jeex léegi ban téere nga jël ci téere Sëriñ Bamba yi pour bu koo jàng te sa wut si xaar nag na ma ni lan nga jëkk jàng ci sa ndaw alxuraan nga jëkk jàng da nga jàng ñetti béyit wala ñetti aaya wala ñetti saar wala da ngaa jàng alxuraan bi yëpp. da ngaa jàng alxuraan bi yëpp. ja jàng kaamil ba mu yegg. léegi jàng nga ko. mbaa yaa ngi koy jëfe bu baax. waaw maa ngi jëfe bu baax. alhamdulilah. sa way jur yi jàmbaar nañu ngir xiir lañ ci lool waaye sëri sëñ bàmba yi ban nga ci gën a taamu jëkk koo jàng. tasawuru si xaar. tasawuru si xaar. tasawuru si xaar mooy firi lan. yóbbul ilaa jinaan ilaahi jëm ci àjjana yàlla mhm. seen xeer kay borom yoon kon ci alxuraan sëñ Bamba dafa téere tudde bi yóbbulum la ñëpp àjjana yàlla ji subhaanahu wa taala waaye sëñ Bamba lan la dénk xale yi foofu ci wàllu alxuraan yaa ayyuha sibyaani yéen ndaw mhm. laa tatani yéen soxloo ajëf laa sul ak njub di mhm. loolu sax moom waxtaxin benn soxla waxtaxin benn soxla lépp si si téere ci la ak jàng wàccane bi na ngeen maytu mu jàll si waa place way texe waaw kay maa li ma la déggee danga nga ni yaa ayyuha sibyaanu yéen xale yi laa tashtaxiloo bu leen soxla woo anil huda lu dul ak jub wa bil ulumi xam-xamit ishtaxiloo na ngeen ko yittewoo kon loolu moo tax nga dugg ci jaara jàng alxuraan ba mokkal alxuraan ba wàcc alxuraan pare ci ñëw di jàng xasida yi borom tubaay fashtaxiloo bi hifzi wa tilaawa na ngeen jàng fexe góorgóorlu ci mokkal ak dangoo jàng alxuraan wàcc ni bu majalis saxaafa ngeen moytu place way texee di waaye place way texee di kan moom moo waroon a wax ci place way texe di la wala place bii ku ci nekk da ngay sa sawara te ban place nga ma a wax ci place way texe di place way texe di mhm. mooy mhm. a foy sag ndaw nga mën a bañ a foy ndaw waa place yi leen a moytu comme ça nga bañ a def loo xamante ne bañ la waaw place kay mooy baal ak fecc ak ay caaxaan ay ay ay xeet yooyu mooy ay place place mooy place yi nga xam ne ay baar la wala baal la wala fowukaay la yooyu ay place la yu waaye te xeet yi yooyu rek la laaj ban place ngeen ci xam ban place ngeen xam bu baaxut yéen xale yi yan place yi ngeen xam yi xam ne baaxut ci ndaw yen place ngeen dul fréquenté du ngeen fa nangoo dem wala place yëpp ngeen di yëpp ah waaw place yi place ay texee di la ak lan bu dee ni football bi pour pour lu bon la ak lan ak sabar ak sabar ay sabar warul wala da dem ci sabar di ngeen dem ay fe ay fecceen ngeen ah ay nit yi caaxaan ngeen ay nit yi mbóore ngeen yu dara da ngeen lu tax ngeen bañ ko lool ah dafa araam ci nun te baaxul kon lépp lu xaraam te baaxul ab élève da koy moytu waaw ba tey sëñ Bàmba ni leen walaazimu. ni ngeen taxoo. Mhm. man ka nga xam ne. Mhm. des yam laa yasaalu du dañ. waaw xaamidan di jaam. Mhm. rabbihi jëm si boppam. illaa xoolal loolu ak njub. xaayidan di wamma. ku loon baal képp gaaw. wax si xeer waxtu ndaw. illaa xoolal loolu ak njub. ak saxaara dana jàng. waxtu kibir waxtu ndaw. xam nga li ngay wax dafa te leerut noonu. fa kullu man baal ku gaawtu waxtu si xare waxtu ndaw illal hudaa jëm ci njub. istaaxa day noppalu waxtal kibari waxtu magam. waaye ku dabaatal li nga xam ne daa raw dundal waxtu yi ci tuub gu sell ak jublu yàlla da nga comme ni ñëpp di texee kon loolu njàngale mu leer la waaye jërëjëf kon sëñ xaarim sëñ seexu naa jërëjëf macha allah kaddu yi kaddu yu rafet la mu ngi noonu ci daara ji siiwee <coughs> si jooju nga xam ni dañ fa tàmbali njàngaleem borom Tuubaa Xaadimu Rasuul di ci ñaax ñëpp nag ñu indi seeni doom ndax sëñ Jiili Mbàkke moo fi nekkoon doon fi jàngale alxuraan ba yàgg mu déplacé wu dem ci beneen barab ni ma sëñ Xaadim wutu ci barab bi rek euh, loolu moo tax ma continuer ci daara ji daara ji nag dañ ko def wax fu liwu wax fu daara boo xam ne dañ koo liggéey ngir jëmmi suñu borom moo waral suñu def fi daara boo xam ne pour jàng la def fi ñaari bâtiment yi maanaam ñaari bâtiment yooyu pour ñu jàng fi alxuraan fi jàngale def fi itam jàkk ji nga xam ne fi la si yàlla yëpp di rot si di wax di jàng si di di julli si seen seen waxtu yu borom yi di fi denc ay jigéen pour néegu sëy kon jëfin la yoo xam ni yàlla rek moo tax bëgg sëriñ Touba rek moo tax sëñ du Mbacke ubbi ko def ko waqf kon ñu bàyyi ko xel lool ci jëfam ju baax jooju te ñaanal ko yàlla. nga xam ne te xale yi itam ñu xool ne yar lañ bëgg ci moom ak yiw lañ bëgg ci ñoom njub lañ bëgg ci moom ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom mi ngi fas yéene di jàng alxuraan fas yéene di mokkal alxuraan di fas yéene di jàng xasida borom Tuubaa yi fas yéene it di ko jëfe nag ba. dañuy ñaan yàlla ñoom ñëpp ñu mokkal alxuraan wattu ko waaye ñoom ñëpp itam ñu ñu man kaamil bi waaye xasida borom Tuubaa yeeg njàngale islam yëpp itam ñu sàmmonte ak moom ba jëfe ko kon kenn ku ci noonu na ci loolu bàyyi ci xel euh, ñaax ci njabootam te ñu def ndànk ci àddina mii ba ñu teetum àddina jërul ñi def naka sul noona sëñ Bàmba dafa wax ne maa ngi leen di dénk yéen mboolem taalibe yi ak mboolem jullit yi jàng alxuraan ak wattu daal di ni talaasumu talaasumu tilaawatal quraan yi wa laasimu nusxa nusxa maal mataabi fa man araada al min mawlaahu fal yaqra il quraana laa yansaahu man kaana fi l quraani sacci hëdi maal ulumi fa huwa xayru hëdi sëñ tubaa nee na ngeen taqoo ak jàngal quraan te ngeen taqoo ak conseil yu ñu di jox te yittewoo ko te ngeen taqoo itam ak jàngum alxuraan ndax ku bëgg jàng ku bëgg jigéen borom bi subhaanahu wa taala del jàng alxuraan te bañ ko fàtte di jàng di mokkal di wattu moo tax sëriñ Bàmba ni koo xam ni danga ànd ak alxuraan ànd ku góorgóorlu ak paséef ak xam-xam yi wut ci wàllu diine yaay gindeeku gindeeku yi gën ci min gindeeku yi moo tax sëriñ Tubaa ni talaaz talaazamu til taalluma تعال تلازموا التعليم وتعليما تعلم وتعليما فلم يزالا للجلال سلما فالعلم ما اكتسب خشية العليم ومن خلا منه فجاهل مليم فالعلم خير ما خير ما ازدان به الفتى لأنه يكرمه حيث أتى فالعلم خم خم دال دق دق دق دق xayru mas daa xayru ma bihiis daana alfata mooy li gën ci li ndaw di yokk di def yóbbal ndax lan li annahu ndax xam-xam yukrimuhu day teral jëmm ji xay su ata fu mu mën a dikk alxuraan a koy taxaw kon boo ci nekkee man ngaa tuutiyee man ngaa ñàkk solo lool man ngaa wef lool say mbir mën naa néew lool waaye nag lay yëkkati jëme la ci aljanna ca palaas yu te foo dikk doo yem ak di jàng borom Tuubaa jàngaloo ay njabootam sëñ Mourou Moustapha Mbakke alkarim sëñ Mourou Moustapha alkarim ak sëñ Fallou Mbakke daf leen jàngaloo alxuraan yar leen ba maam Cerno Birahim ndaamal daaru mu leen yoroon téye téye leen melan melokaan wu yéeme sëñ Mbàkke Buso di jàngalekat bu digg fiq te xam lépp ci wàllu wàllu yàlla sëñ mbàmba dafa waxoon ni leen kun man li durri wal bu usatanal xastan wa taalul jiile yaa mutaallimu kun na nekk foo mën a nekk kaatiman di nëbb li durri ay loraange wëlbu sa ay wanc ay jafe-jafe te daal soo ko defee di nga am xastan ak dëgmal sa borom wataalu da nga kawe aljiila maas gi sag maas yaa leen di raw yaa mu taalim yow mi sàkku xam-xam ndax xam-xam yombiwul noonu de fal ilmu laa yu'taa liman yaxsha taqwa bal rabbuna abran saburan yulhim xam-xam duñ ko jox ku ragal coono mbaa nga ragal ab xiif waaye suñu borom kii ragal yàlla tey góorgóorlu ci wàllu yàlla tey muñ te gistu xam-xam kooku la ko yàlla jox kon xam-xam daal sëriñ Tuubaa Mbàkke soññe na ci ñu bàyyi xel ba ci tum àddina mi xam ni yonent yàlla Muhammad nee na inna li kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati almaal nee na xeet wi xeet woo dem bu nekk am nañu fitna ju nekk ci seen kaw te fitna yi sama xeet mooy alal kon alal nañ ci def ndànk te tey ci buñ koy wut te wut ko wuti ko ak ngor te xale ñu jàngaloon seen si jàngaloo leen alxuraan ji jàngaloo leen xam-xam yi te yar leen yarub diine ñu yaru ci loolu itam lu am solo la xale jigéen ñi nañu fexe ba jàngal leen muuru ak doxin bu baax ak yaru ak yiw xale yu jigéen yi nañu leen jàng nañ leen jàngal yaru ak yiw ak muur seeni cër ak sàmm seen bopp xale yu góor yi nañ leen moytuloo xeeti po yi ay football ak ay làmb ak ay xeet yoo xam ne xeeti folo la nañ leen ko moytu te ñu leen di jàngal seen faratay diine doonte ay ndaw lañu ndax sëriñ tubaa sëriñ tubaa li mu jàngale soññee ko mooy sa doom bu jàngee ba wax bismillahi rahmaani rahim danañ ko jiggal moom xale bi ak yaayam ak baayam ak ki koy jàngal seen yaram araamal sa wara kon na ngeen nàmba ma na ngeen manga xale yi ñu jàngi kon loolu jar naa bàyyi xel waaye ci biir jotaay bii nag dañoo dalal suñu menn mbokk di suñu wëlëree di suñu dëkkandoo di suñu xarit ñu koy wax alxaaji sëy Assalaamy FM mu nekk jëmm ju jàng alxuraan. juróom ñeent fukk ak juróom ñeent yi toggul dara nekk jëmm ju yiw yaroo ci mag ñu set ñu tëdd ñiiw ay magam di nit ñu baax di ñu yiw di ñu sell euh, way juróom itam ca lool la la dund mu dem ba kokki jàng alxuraan ba wattu alxuraanu karim ba bind ab kaamil bi ma jógee ci sama daara jii ma nekk dama dugg daaram xam naa danañ ko bàyyi mu commentaire ci biir euh, waxtaan wuñ koy xàmmee ñu indi daaraam itam ñu tàmbali jotaay bi continué asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulillahi alladi anzala alqur'ana tibyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahma wa shifaa'un lima fi sudur wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu an ilsahabati waltaabiina lahum bi ihsaan ila yawm ddin saddit lisaani nawwir janaani safi l amaani wa sid baraay aslah tahaali bila artahaali bii di iyaali bila bukaay suñu xaadim ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ngi leen di nuyu di nuyu waa jataay bi ñi nga ñu ngi teewlu jataay bi jiital ci nuyu bi siyaar bi nag sëriñ Muntaxa ayyadahu llahu wa baqaahu di ko ñaanal fan nu gudd loolu ànd ak wér di ko ñaanal mbooleem njabootu Cheikhul Khadim yi yëpp di ko ñaanal mboolem taalibe yi di nuyu suñu sëriñ sëriñ Jiili Abdou Khadir Mbacke mu sëriñ Modou Moussa Dieng di ko ñaanal fan nu gudd loolu ànd ak wér di nuyu uh, sëñ Fallou Galass Sylla ak mbooleem waa Assalaamy TV Assalaamy FM ñëpp ñu ngi leen di nuyu. 99 point 0 Touba alhamdulilah jërëjëf sëñ uh, ci sa nuyoo ak sa comportement yar ak say teggin noo ngi lay bëgge lool ngir sëñ Tuubaa Mbàkke di la naw lool ngir sa yar ak say teggin ak sa jiw di la loo xel jataay bii nga xam ne ci lañu nekk di Assalaamy TV eh, Fallou Galaxy la di kilifa gu mag sëñ Fallou di tànneef di nit ku baax dalal ñëpp ci jataay bi yaatal ci ñëpp Euh, ñu bëgg itam ñu nekk fii ay jëmm yoo xam ne àddina bi yëpp dañuy seetaan nuy njariñal yàlla njëriñal lislaam di njëriñal àddina ak alaaxira hmm. waaye ci biir nekkin wi ñuy góorlu di yàllee suñuy publicité ci ku ko man ci jataay bi ku fi man nga ñëw fii itam di def sponsoré jataay bi ngir sa yëgle yoo bëgg di yëgle ak sa yoo bëgg ñu xamle ak yoo bëgg di jaay ak yoo bëgg di def su ko defee ñëpp am ci wàll jariñu ci jariñu ci waaye maa ngi lay laaj noo gisee sa mbirum daara ji ak ban taxawaay nga taxawee waaw ah, jërëjëf suñ xaadim mm-hmm. ah, daara moom suñu boroom subhaanahu wa taala moo ñu defal tawféex nattoo ñu ci tamit ñu nekk ci ndax daanaka dañ cee yaru daanaka bañ xàmmeeg léegi taqaleekoogun daara tax suñu way way jur wa sëriñ Abdoulaye Seye rahmatullah alayhi ginnaaw ba mu ñu jëlee jox ñu sëriñ Modou Bousso Dieng mu mu jox ñu ndigal mu yóbbu ñu daaray kokki ñu jàngi foofu alquran bañ fa jàngee ba jàng ci école bi ba sori mu indiwaat ñu fii joxaat ñu sëriñ jiili ñu nekkal ko yoral ko daaram ànd ak di jàng majalis hmm. boobu ba léegi nag ba ñu sëñ bi yeewee ba léegi ci lañ sëñ ci daara nga xam ne daara daal tarbiye woon nañ ko tarbiye wu jàng tarbiye bu yàgg a yàgg te nekkuñ ci di lu la nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa woon tey mooy nag alquran waxoon huwa alladi baata fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin mhm. loolu cheikhul xadim radiallahu anhu ci la wuutu woon yonante bi mooy yonent bi sallallahu alayhi borom bi daf ko yónni ngir mu jàngal xeet wi mu jàngal leen alquran ngir mu jàngal leen yatlu alayhim ayat yi waaye wa yuzakkihim ngir mu tamit mu yar leen waaye wa yuallimuhumul kitaab wal hikmata waaye tamit mu xamal leen téere bi xamal leen lan mooy ak xerañte loolu ci lañ nekk suñ borom defal ñu tawfiix depuis 2017 2018 mm-hmm. ci lañ sañ ci daara ji di fi jàngale alquran waaye di fi yar yarub lislaam ci ndigalu suñu sëriñ boobu ba léegi daal ci lañ ci lañ nekk ngir fas yéene jàngale jàllale mission boobu nga mission boobu nga xamante ni képp koo xam ne danga ngaa jàng ba pare danga ko war a jottali waaw mu nekk mission boo xamante ni ku ci jot danga ko war a jottali ñeneen loolu daal ci lañ nekk ba fii ñuy wax ak yow alhamdulilah macha allah xam naa kon ñu jéem a teeru daara ji nga xam ni mooy sa daara ji nga xam ne ci lañ woon mhm. ñoo diglu ko xool ko xool jataay bi ba ko defee nga di commentaire ci jataay bi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. mbokk yi tasawuru subaan euh, euh, mbokk yi présenté jataay bi ñuy bëgg a def mooy tasawuru sixaar di fas yéene ànd ak yéen ci Assalaamy TV Assalaamy TV nag euh, télévision la bu ànd ak rajo. am solo lool nu leen di ànd ak ay sëriñi daala fii ci Touba Xayra euh, yàlla dogal itam nag émission bi di émission bu ñuy bàyyi xel déwut dikut tasawuru si xaar yóbbalu ndaw ñi ilaa jëneen ilaa si leen xaar ba ci àjjana yàlla ja kon ñu ngi fas yéene dugg ci daara yi Touba Xayra fas yéene dem si yi Sëriñ Mourou Bousso Dieng euh, fas yéene demit ci jàngalekat ba ñu koy woowee alxaaji sëy incha allah kon foofu la ñu bëgg alaaji say bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. salaam wa rahmatulah wa ñoo ngi leen di nuyu. sëñ maa ngi ñëw tey ji la seet. ñu ngi delloo siyaar bu baax atum nuyoo. waa dalal fii ci daara ji. alhamdulilah waa tasawuru si xaar ñoo fi ñëw tey. Mhm. yóbbal naw ñi. Mhm. ma lay siyaare di la laaj. daara ji kañ ko tàmbali. Mhm. ak noo ko tuddee. ak ci yan ngay dox xale yi. Euh, jërëjëf sëñ Xaadim ginnaaw bañ leen nuyoo siyaar rek di leen jaajëfal ak yaa ngi àndal yëpp télévision bi di leen ñaan suñu borom defal leen ay xéwal leen jaajëfal bu baax fa lañ jànge muy daara jooju ñu tudd daaray kokki bu mokkal alquran suñu borom defal ñu tawféex ñu dugg ci école ba xaw caa sori ñëw suñu wajur ñëw fii ci dëkk bi ñu ñëw àggale suñu njàng ginnaaw loolu tamit ñu ngi nuyu di siyaara bu baax suñu sëriñ sëriñ jili Moustapha bi moom sëriñ Mour Bousso bi nga xam ne mooy suñu wasila mm-hmm. moom laa nekkaloon mm-hmm. yoraloon ko daaraam ba yàlla dogal mu wàccee ñu ginnaaw bi ñu gëstu ci daara yi génn dem ba ko tey Louga def fa ab biir bu xaw a juróom-ñaari at ginnaaw ba nag bañ jógee foofu ci atum deux mille dix huit ci lañ sos daara ji njëlbeenu deux mille dix huit janvier deux mille dix huit ci lañ ko sos deux mille dix huit waaw ñu ngi ko sos tamit ci ndigalu suñu wayjur waaye ndigalu suñu sëriñ li ko noonu daara ñu ngi ko tuddee mooy Serigne Modou Bousso Dieng. Mhm. tur bi nag liy sabab bi. Mhm. moo di suñ Modou ba yàlla dogalee may dem kokki sama wajur dama fa yóbbu. Mhm. dama faa jaaroon. te mu defaloon ñu ñaan yàlla dogal ñu bi jàng alxuraan alxuraan yomboon ñu lool bu ñu ñëwee tiit bi di sant ci daara suñu xel nekk ci moom ñu tudd ko mu nekk daara yi Serigne Modou Bousso Dieng ci tarbiyatu wa tahfiisil alxuraanil kariim dëgg la waaw allah sa wajur nu mu tuddati woon ci la ki la jàngal alxuraan sama waajur bi ma jàngal alxuraan sëriñ Modou Khady Seye lañ koy lañ koy wax sëriñ Modou Khady mag la ci man ginnaaw bi dama jël yóbbu ma kokki daara ah, ah. kokki sëriñ Mokhtar Naar Lo moo ko jiite alhamdulilah astafurlah mm-hmm. léegi sa daara ji yaa ngi ko tuddee sëriñ Modou Moustapha Falilou Mbacké mm-hmm. ndax mooy la jàngal yoon bi ngay jaar ba xam mm-hmm. ndax ci loxoom nga jaar mu ñaanal yàlla yàlla def la tawfeex ak taysiir macha uh, allah xale yi fi am yan yan yan kàllima nga ma ci mën a jox yan baat nga war a jox ci xale yi. waaw ah, xale yi de neex nañoo jàngal wala ñoo ko jàngal dëng nañu wala dëng ñu yan xam nga daara moom li ko tax a jóg mooy jàngale ak yare. Hmm. alhamdulilah suñu borom mi ngi ciy defal tawfiix ndax bañ sañ ci daara ji léegi. Hmm. ñu ci génne ay yu mokkal yu xaw a takku. Hmm. yoo xamante ni xaw nañoo bari. nekk noonu tamit ñu ngi jàngale ñu ngi yare. xale yi daal ñu ngi leen di jàngal ñu ngi leen di yar xale nag moom ku leen yor faw moom da nga gis da gis lu ne ndax dañuy wax ne maanaam benn jur benn yata koy sàmm maa ay jur yu bari benn yata koy sàmm waaye ay xale kenn ku nekk yar waroo yat ba koy sàmm loolu moo tax moom xale yi faw dañuy wuutee moom duñu mën a yab dana am ñu neex a jàngal am ñu naqare jàngal waaye teewut dañu xam ne liggéey bi moom liggéeyal yàlla rek moo ko tax a jóg dëgg la alhamdulilah euh, kon am nga fi donc yow mokkal alquran yu wattu bu rafet day jàng wàllu français wala arab wala wala ama wooloo waaw daara ji incha allah xam naan at yi passé yëpp suñ daan def xafla xale yi dañ daan def bu ñu defee xafla rek hmm. suñ paree ñu bàyyi leen ñu dem waaye ren am nañ ci lu toll juróom-ñeenti yu mokkal yàlla dogal ñu bëgg leen a tey defal leen franco hmm. arabe ñu jàng français ak arabe ci daara ji noonu am na xale yoo xam ne ñu jota nga xam ne yow mii laa ci waxtaanaloon ba yaa leen di yor arabe bi ordinateur bi ku leen yor français allah dëgg la dëgg la dëgg la yal na yàlla barke si daal am naa yàlla dogal sama jarbaat bi moom la moom daa wàcc alxuraan ñu mooy juróom yi ñëw di ko di ko di ko di ko di ko waaw dafa wàcc di ah, ko toggal ay ay kii ah. maa moom na barkeelu tuuti rek ko defee soo jëm ñëw moom dafa ñëw pour kii daa bi sooy la tudd sa daa bi fàll la tudd sama jarbaat la sama mag ko jur <laughs> macha allah na barkeelu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 هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم kon xale bi jàmbaar la xale bu jàmbaar la xale bi moom moom mooy jarbaatu suuf bi la defe naa waaye mokkal na alxuraan te yaayam yi ñu ngi taxaw nii di di ko toppatoo ay laax si waxtu alxuraan yal na yàlla def ko moom islam jërëjëf maa ngi ñaan ci yàlla yonent bi Serigne Touba mm-hmm. mu ñu boole alaji say fa nga bëgg a jëm yal na la fa yàlla yeggale lépp loo sumb yal na yal na ko daal maa ngi lay ñaanal ci sama xol bi fa ma ko tibbe ndegam ñoo bokk baay yal na la yàlla taxaw te taxaw la sa njaboot yal na la yàlla jàppale te jàppal la sa njaboot barkeel sëñ Fallu Mbàkke mi ngeen yaakaar alaaji sëy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 أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم alxuraan ji rafet na neex na set na yal na yàlla def la ma ko fi saan te nga barkeel yal na yàlla si bilaay kontaan nañ si lool jërëjëf waaw ci premier élève bi nga xam ne ñoom mokkal alxuraan ci ci la bokk mu tudd ah maam maam mama ndaw mama ndaw mama ndaw moo ñu ko bokkal sa sa rakk ji moom moo ko num tudd Fatou kii Ami Fall Pape Sey Fallou Ndiaye ah Xaadim Jaw macha allah ñuy watt dañu alxuraan karim mokkal bu rafet ba léegi dañuy jàng arab ndax jàmbaare dañuy jàng français aussi pour gën a xam tubaab ngir seenu njàmbaar waaye ma lay laaj euh, sëñ Ba soxna Mbaw euh, maa huwal islaamu lan mooy islaam al islaam islaam الإسلام الإسلام هو موم القواعد الشرعية فوق الشريعة التي ما خمنا جاءنا إننا نكون بها تنيوم نبينا سنجرنت محمد محمد صلى يا الله الله يا الله عليه تنيوم wasallam ta musal ko min indillahi bàyyi ko fa yàlla macha allah kon lislaam bonk diine la yàlla yabal sayyidina muhammad mu indi ci li bonk lislaam yo war a jëfee kon yonent yàlla muhammad moo ko indi kon loolu mooy islam léegi lan mooy bonk islam xawaay islam xawaay islam ñaat lañu ak ban ak ban lañ jawaabu laajte jawaabu tontu maa hiya qawaaidul islam lan mooy ponk l'islam qawaaidul islam ponk l'islam xamsun juróom shahadat mooy seede an laa ilaaha amul benn buur illa allah bu dul yàlla illa allah bu dul yàlla wa anna muhammad naka muhammad rasulullah ndawul yàlla mhm. ay qaamu salaat ak taxawal julli wa itaay zakaat ak joxe azaka ak joxe azaka wa sawmu wa sawmu ramadan ak aji néegu yàlla aji màkk kon kon kon yi juróom la seede ne yàlla kenn la seede ne Seydina Muhammad yàllaa ko yónni seede eh, seede loolu ba pare te taxawal julli di joxe asaka di murum koor waaye itam nag ngay aji màkka soo ko mënee benn yoon ponk kon xam nga ko bu baax a baax kon yooyu bopp yi ñu laaj de xam naa des yeneen laaj yeneen jënd waaye waaye fajar lañu ñuy jóg buñ ba waxtu sept bi heure boobu nag ci la jàng ñi bii di doog a ñëw ñoom buñ xëysee tombeeg ñee di wàcc mooy internat bi waaw di wàcc dem dallu ji boo defee ñoom ñooy jàng di tàmbali waxtu sept heures bi ba waxtu une waaye ci biir diggante boobu danañ fi am istiraaxa noppalu hmm. mooy bu dix heures soro jotee hmm. dañuy daal di génn dem ndékki ji noppalu hmm. ba dix heures trente ñu duggaat waaw jàng ba une heure bu une heure ñu wàcc waaw ngoon gi dana dugg trois heures quinze ngoon gi trois heures et quinze eh, eh, waaw waaw ay dix huit heures trente ñu wàcc marax dañuy jàng ba keroog ñu waaw waaw ñu doog a wàcc. waxtu yooyu la ñuy jàng. ah waxtu yooyu mooy waxtu xale yi kon njàng mi mbaa dox na ci xale yi rek mbaa baax na. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. ah yàlla moom ma ngi dox moom. yàlla na bu baax a baax. amiin ah, xale yi am na mokkal alxuraan wala amagul ñu mokkal ñaata xale yi ñoom mokkal alxuraan. waaw am nañu mokkal alxuraan. daa hmm. ji xëy na bi mu sosoo yàggul. waaw waaye ci taxawaayu mudir bi. waaw am ay kaan jot na fee génn. ndax. ci bi ñuy waaj tëbis bi rek waaw defoon nañ benn xafla conférence boo xam ne waaw amoon nañ juróom-ñeenti gone yoo xam ne mokkal nañ waaw daawit yaakaar naa ne amoon nañ juróom ñoo xam ne mokkal nañ waaw daaw jéegit am na ñaar kon nañu gis ne ah résultat ma ngi am daal ah, alhamdulilah trop daara ji kan mooy borom daara ji ak kan mooy mujjul bi euh, mu dégg mooy sëriñ alaaji sëy sëriñ alaaji sëy sëriñ alaaji sëy waaw waaw waaw mooy borom daara waaw waaw kon taxaw bi rek yàlla na yàlla jàppale xale yi baax yàlla jërëjëf waay. macha allah kon kàddu yi rafet na trop. ah jërëjëf suñu xaadim ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom lañu àndal ci daara ji rawatina suñu mbokki jàngalekat yi. Hmm. di leen ñaanal rawatina kooku doon wax muy ñu di wax suñu maam Mor. Hmm. ñu ngi koy ñaanal bu baax muy jàmbaar lool. <coughs> comme daara ji comme noonu ñu ko noonu ma ko waxee rek noonu la demee hmm. muy comme ni daara baaxoo demee muy daneen tàmbali di jàng diggante samedi ba àllarba ci ngoon hmm. bu ko defee tamit eh, dañuy jàngale di yare comme ni ko alquran diglee hmm. wa yuzakkihim wa yuallimhumul kitaaba wal xikma danañ jàngal xale yi dana leen yar ci yarub lislaam dina leen yar tamit rawatina comme ni nga tuddee émission bi muy mm. tasawudu sixaar mm-hmm. mm-hmm. mu sixaar muy yóbbalu ndaw ñi ba jëme leen ca aljana ji nga xamante ni moom la ñëpp a bëgg a dem mm-hmm. ndax tasawudu sixaar day téere bu gàtt boo xamante ni sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu da cee tënk lépp mboolem luy diini mi ci biir rawatina nag li ñu tuddee tawxiid te kenn ku ne xam ne na nit li war a njëkk ci moom ginnaaw bañ ko jàngale alxuraan mooy mu ñu jàngal ko tawxid mm. tawxid te alquran mooy tawxid mm. kon kon daal eh, téere bi moom mi ngi noonu mm. dañ ciy nekk suba ngoon guddeeg bëccëg ndax téere la boo xamante ni ku ci jàpp tey topp li nga xam moom la suñ borom digal yàlla moo garanti ne man yàlla du ma sànq asalaamaaleykum walladina yumassikuuna bil kitaabi wa aqaamu salaata inna laa nudiu ajral muslihin mm-hmm. xar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. taggoon ñi ci nekk ne leen de mm-hmm. yéenay ñi gën xayrukum man taallama alquraan wa allamahu ñi gën ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni dañoo jàng téere bi bari walbatiku di ko jàngalewaat kon daal ci loolu ci lañ nekk ci lañ nekk suba ngoon guddeeg bëccëg. daara ji ne comme ni ñu ko waxee depuis deux mille dix huit lañ ko sanc waaye suñ borom mi ngi ñu ciy defar résultat bu baax. ndax at mu ne danañ génnee ay xale yu mokkal. waaye ren nag comme niñ baaxoo def nga kenn woon na maam xale nga jàpp ci nekk ci moom sonn ci ba fexe ba def ci moom alquran wëlbati ko joxaat ko. ay mbokk am sàgganaat ba lañ defoon ci moom dañ. loolu mooy sababu ren jii nii xale yi ñu génnee mokkal ñu wutal leen ay jàngalekat ñu leen di jàngal arab ak majalis ak di leen jàngal français pour xale yi parce que waluti mën a téyewaat seen alquran ba du rëcc mm. ndax alquran mm. coono bi ci nekk ci def ko ci gone mm. ak at yi ni mu diiree ak ni nga koy xëyale di ko gontale loolu bu àndeek maanaam ak càggante ba mm-hmm. bu àndee ak càggante ba ba mu rëccaat daray àddina jëru ko kon loolu moo tax tamit ñu ngi soññaat way jur yu baax di leen xamal ne gone yi ginnaaw ba ñu leen jàngalee alxuraan ba noppi nañ leen bàyyiwaat ci daara yi ndax ab kii olof day faral di wax ni maanaam ñam boo koy togg te mhm. boo ko yekkee kenn du ko jariñoo dëgg la de noonu loolu la mel maanaam gone tamit boo nekkee ci moom am looy def ci moom bu yëggut mm. bis bu fa jógee day yàquwaat rek mm. rawatina fii jamono toll mm. nga xamante ni mbooleem li yàq nit lépp mi ci mbedd bi suba ngoon guddeeg bëccëg kon nag loolu mooy sabab bu kon bu ko defee xale yi ñu téye leen ci daara ji bàyyi leen fi ngir ñu jàngal leen njàngaleem xam-xam njàngaleem diine lislaam njàngaleem Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jërëjëf barakallahu alhamdulilah sëriñ euh, Alaaji ci sa kàddu yu rafet sa commentaire it bu am solo ndax euh, sa daara ji ku ko xool xam ni daara ji du du ju ndaw man damay door a commencé daara amaguma sax ñeenti weer ci daara ji kon daara ji juy door a tàmbali la yow nag daara joo xam ni commencé nga deux mille lan dix sept wala. dix huit en tant que deux mille dix huit ak léegi. Mm. ñaata at lay war a tollool. cinq ans six ans. kon juróom-benn at war nga koo def juróom-benn at nga di ko defar sa daara. Hmm. di ci góorlu yaa ngi ci yoon wu gën a am solo. Hmm. kon yàlla yàlla fay la yu. nu eh, ngi gërëm di bégee suñu wayjur wu tedd. Hmm. di bàyyi fàllu galas. mu ngi jotal ay nuyoo ñoo ngi koy ziyaara bu baax. bëgg alxuraan lii bëgg lu baax li ñuy def lépp. yàlla na ko rajo bi yàlla na ko yàlla dimbali ba rajo bi fis ni fan ni borom Tuubaa mel ci melokaan ak jëm ak jëf ndax jikko jooju rek la yor yar boobu la rek la yor yar jàngale moom wat la yor hmm. loolu moo tax mu tëmbal daara ji jàngaleem alxuraan hmm. ak it tërbiya xale yi ak tig leen ci yoonu yàlla yàlla na ko yàlla defaral defal kon maa ngi bëgg sa daara ji di kontaan lool di am yaakaar lool ci liggéey bi mhm. yàlla na ko yàlla jëme kanam te yàlla nangu ko te nga wàll na ko itam nag ba daara ji fis lool mel ni sa jas ji baabu redouble ko nag yàlla na ko yàlla defal ñun ñëpp wax dëgg yàlla yàlla defal la ci ndam lu kawe a jot jërëjëf ñoo ngi rafet loolu liggéey bi di la kontaane lool mhm. di bàyyi xel sunu bopp ak Serigne Touba Mbakke ak wax albiladu isa ma isa mamasahal madro am ndox saa yu laalee suuf si ñi ndox mi ñi suuf si naate am gàncax gu ci juddoo yàlla na yàlla dimbali ba alxuraan ji raw loolu ci nun fuuf daal di ne wala ilmu xam-xam dëgg-dëgg yéeg loolu ama an xal bi saahibi yi xam-xam day day xam-xam day nëbb wala day wuññi maanaam bët bi du dul gis da koy feeñal kamaa yu jëli sawaadu sulmati xabaru lëndëm mu weer lëndëmu lëndëmu lëndëmu lëndëmu guddi ni ko weer di leerale ba mel ni lëndëmatul noonu la alxuraan ak jàng alxuraan ak xamle di leerale xolub nit kon nañu leen di soññ ci loolu te di leen ñaax yàlla yàlla dimbali ni ñu gën cee dëgër di leen xamal ni jataay bii rek incha allahu dañ ko yemale fii ba beneen jataay incha allahu taala ndax waxtu wi jot na ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaan yàlla jàmm seen mbokk Oustaz Khadim Gueye àndan fi ak Alaaji Sëy Eh, di ñaanal yàlla jàmm jotaay bi nekk ak yokkute képp ku bëgg a eh, yëgle ci jotaay bi nga jéem cee teew incha allahu taala maa ngi leen di tàggu fii wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. والكل من جملة السادات سور تب يكفي المريد مريدا ذا غوايات